da ngay ubbi sa télévision. par force Guccace. TV TV. waaye investissement boobu fan la jógee. ci kaw mënuñu ma catu laaw la cat suba la ma lamb mais ci kaw ci kaw la jógee. Mhm. waaw sur le international. ubbi télévision bi projet la boo xam ne yàgg nga ko liggéey. wuu si laay rêvé Padros Boubacar Diallo mii tey ñu daan ànd depuis Tëngéej à l'époque def nañu 40 ans. noo nekk Sénéfa di foowandoo di footballandoo di jàngandoo ak Pape Alé Niang mhm. merci à Pape Alé maa ngi lay féliciter di lay ñaanal tamit parce que bi ñuy bi ngay ñëw fekk nga ma ci violon bi ma yëkkati ay kawas yu weex tàll yu weex tàll jox la ko loolu dinañ ci ñëw voilà mhm. ok ci biir loolu Padros mu nekk euh, euh, mu nekk loo xam ne man personnellement dama dama dama dama dama dama ko yàgg visé wu mhm. parce que dinañ toll moment boo xam ni di nga tarbiyu mais après da ngay demal sa bopp Padros di nga topp nit ki ba gis njariñu nit ki. Mhm. après yow nga jéem a roy ci nit ki. Mhm. def ni nit kooku def. moo war a tey mais xam nga xam nga ay projet télévision du loo xamante ne da ngay xëy xëy rek def ko projet de télévision day nekk loo xamante ni business boo yàgg di. togg la voilà c'est-à-dire travail de long terme. boo xamante ni liggéey nga ko démb. voilà moom laa liggéey démb grâce à Aïda Patra moom moo mës a wax ñu toog ci euh, plateau bi Aïda ma maman chérie maa ngi koy nuyu. d'accord mënu ma doon jéego fexeel ak capacité bi nga am ak fit bi nga am fexeel ba ibbi sa yëfu bopp. ma ne ko waaye mais maman loolu nu mu nu ma yow liggéeyal rek mhm. dinga dem ba kilifaale yi sampal sa fu bopp doole la parce que fii ku dem dañ la dooleel ku ñu puus da euh, dañ la puus ku dem dañ la puus da nga bàyyi liggéey ci télévision j'ai euh, avec euh, la télé ba ma nekkoon di leen ñaanal une très bonne réussite jóge naa fa baare naa leen du ma ci waxati bëggatuma ci wax te du ci mës a waxati non franchement du càcc boo nekkee ci bërëb di liggéey mhm. di partage ak ñoom jàmm yàgg fa am mhm. ngeen yàgg di partagé mhm. boo fa jógee teewul yaakaar naa jàmm dafa war a am alhamdulilah mais fi euh, fin bi bu jàmm amul ñaanal na rek ñoom ñu dem ak ñoom seen seen i bëgg-bëgg mais yow ñaan bi nga leen di ñaanal yow toujours day leen ci ëppale parce que yow yaa ko mérité ñàkk jàmm boobu kenn moo ko indi ñoom par exemple comme kan. non par exemple ñoom man bu ma fa jógee rek jógee naa fa bëggatuma ci wax ñu tourner page boobu. xanaa ni ñu fa jógee neexu la. neex na ma neexu ma parce que man colère bu ma fa bàyyee ba ma jógee fa rek dama ko damay tëj damu caabi ji sànni ko dëggate ko bëggaatuma ci wax s'il te plaît parce que damay sama yaram day tàng quoi parce que man. non du ma dund injustice. je suis d'accord. voilà man damay def lu baax di wax lu baax. di def lu baax xam nga yow. voilà euh, tu es le peuple. voilà yow tu es le peuple. oui. <clears throat> nit ñi dañ la bëgg par force dañ may bëgg parce que sama yaay daf ma bëgg keneen ku ma bëggul la jël sama je def na nag Sénégal ñëpp dañ la bëgg waaye Don Diego hmm. dafa bokk ci ñun quoi exactement Don Diego daf ñuy reetaan loo hmm. Don Diego daf ñuy daf ñuy di wax dëgg tamit du neex ñu bëri te damay wax dëgg ba ba may dee parce que ala kulli aal yàlla moo wax dëgg hmm. te nit ki boo ko yëgee yëgu la boo koy wax dëgg dégluwu la ci àdduna bi ba ci sa doom sax bërgal ko. léegi nag ci loolu laa bëgg ñu waxtaan un peu euh, jóge bi nga jóge 2STV. Hmm. après problème mi am. Hmm. ba ñu dégg nga dem euh, caabi féete la ginnaaw. waaw 100 mètres rëbës ci kaso bi mais maa ngoon chambre bi nag bien climatisé trois laal et puis tranquille comme foog ñi dañ may dañ may xoxotal mais maa ngi nuyu colonel Bokande one love hmm. parce que tak dama ñëw ñu yóbbu ma 12 ci bandi yi. foofu de sama place pakatas la. gars yi woote intervention yi bare tak à night time ñu génn mu dugal ma chambre ponkal yi fi kilifa yee di nekk mooy numéro 8 ma leen di nuyu bëgg mu wax seen tur ay kilifa rek laa fa fekk. Mhm. billahi wallahi talay am na toilette am na 4 matelas chambre chambre de 8 am na fa ay xarit am na télé bu mat waay am naa fa ay xarit yu fa nekk wallaahi chambre 9 ah, chambre 9 ah, chambre 9 nag dama bu ma génnee cours foofu laay dem jàng di ñu may expliquer xasi da jaar jaaru sëriñ chambre 9 nag ña fa nekk ñëpp pratiquement wallaahi nit la ñu merci ñu yeew samay nit correct ñu ma ñu ma sopp loolu sax très bien ñu leen de passage parce que chaque jour dañu lay seetaan bien sûr dañu may seetaan moo tax ñu ngi ci profité yow moom heure bi sa heure la waay waay ku ko bëgg sa heure la ku ko bañ sa heure la euh, ku nekk da nga am heure yow heure sa heure la wa mais Cheikh na yow xam nga man du ma jay kenn du ma man man tey heure bi sa heure la beneen animateur bi mer affaire am la heure bi Padros sa heure la parce que sa émission dëgg dina fa génn. di nga lu nit ki bëggul woon wax léeg-léeg gaañee ne da ngay dugal nit. mais man mënoo mu dugal maa lay dugal. <laughs> dama tay maa lay dugal xam naa final bu suba. Mhm. parrain bi mooy El Hadj Ibrahima Sall ancien ministre du plan mi ngi lay seetaan nee na tu es très correct. merci xam naa ni moom di la seetaan. El Hadj Sall. ku askan bi ñëpp bëgg. merci merci directeur très correct jàng am xam-xam gën a jàng gars yi trois quatre mois mu bind livre. ah oui non kooku univers professeur moo jógee ba France ñëw. di ko seet si mu présenté ma ko au Radisson. c'est son professeur tubaab. kooku bu ma ko jege woon damay sàkk ci moom xam. laa ilaaha illa danaa la fa yóbbu final bi suba sax dama lay yóbbu. très bien dañuy ànd ñooy dem yenn merci alors nan nga ñu mën a expliquer ci sa euh, dem 100 mètres un peu ak situation bi foofu naka la demee woon. 100 mètres bon dem bi mooy diffamation lañ ma wax après porté ma plainte après voilà jaay ma doole yóbbu ma mais kenn rek moo am doole muy buur bi azza wa jalla waaw parce que tey doole boobu ñu ma doon jaay bu antu woon maa ngi ci kaso bi ba léegi billaahi wallaahi tallaahi mais sama liggéeyu ndey ak sama dëggu ak ñooñu xam ni man lii ma wax lépp dëgg la kenn mënu mu kenn kenn parce que dañ lay sosal di la di la sosal waxal la loo xam ne yow du sa jikko waxal la loo xam ne yow meloo noonu pour tëj la parce que war nga dénoncer loo xamante ni ñoom ñu ngi ragal ñu ngi tiit defe ni da nga leen di porter plainte da leen yóbbu ci yoon da nga leen di def ji da leen di def ji da ñu jëkkantu alors que bëgg la indil problème tu vois man kenn mënu ma indil problème sant naa yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax grâce samay mbokk. exactement ci ban condition lañ la yóbbee. mais ci condition bi nga xamante ni coow li bëri woon na ci dëkk bi dafa saaga ñii dafa wax ñii te dara du ci dëgg man du ma saaga nit du ma toroxal nit. c'est ça patron c'est man daal ba ma sañoon ñoom ñun may seetaan dañuy bëgg ku leen tudd te bëggu ma waxati ci ñoom. mais man boo fa nekkee dafa cent ans. tamit au dernier moment mën nga yàq cent ans yi nga fa xam nga man. waa 2STV samay xarit lañ. xaw ma de. xaaral xaaral. kooku la. papa El Hadj Ndiaye sunu papa la. kooku sa papa la xaaral rek. xaaral rek naa mooy sama papa. waaw xaaral même tuuti Ndoye. voilà papa El Hadj Ndiaye papa la. man am naa bàyyi du sama bàyyi. réew mi ñëpp am nañu respect ci moom de par doxalinam. doomam sunu xarit la te sa xarit la muy. Euh, Abdou je l'aime bien c'est mon ami. waaw mais déglu rek. mon ami Salah Djeba Mohamed c'est mon ami. waaw déglu moom ma terminé Abdou sunu xarit la léegi ñun ñaan nañu bu fekkee dafa am lu am ci famille boobu ak yow. yow ñu war a mën a yëkkati sa loxo. yóbbu la ba foofu jàmm. <laughs> waaw man tey intention bi ma jël. moo que tey bu ma sañoon. situation bi ak problème bi nga expliqué yëpp jàmm dafay dellu si waat. Padros kenn gënu ma bëgg a jàmm. Mhm. parce que nitu jàmm laa. boo mhm. ma fekk <coughs> maa ngi retaan maa ngi adorable ak ñëpp. Mhm. mais Padros ku la dugal kaso. ku la yóbbu kaso sa noon la. billahi wallahi tallahi jàpp laa àndal bi nga dugg see émission bi di waaj commencé nga may presse lan laa la wax. damay julli ba pare kooku rek laa gëm boori bi azza wa jalla bëgguma bëgguma bëgguma je t'aime bien je te respecte beaucoup ak sa expérience ak sa correct bi nga correct man xam naa la dama la rus sax bokk ak yeneen animateur yeneen gars may saaga mhm. yow dama la rus je te respecte mhm. parce que gantal boy mhm. mais bëgguma bëgguma ñëw fii sax moo ma ko gënal. yow te ngaa fexe ma ñëw fii en attendant sama télé di taxaw. bien sûr boobu sama ami la ma ñëw def télé def rajo. Mhm. et puis noonu lay demee sax soxlawul sama kanam rek demande. léegi man balaa may wax nga ñëw <laughs> ah, mhm. mu jeex nga ni ko papa baal ma ak après jeex na. jaaraama jaaraama waaw am ak amu fi bu baalu di am ñoo may baalu. man baal naa leen jégal naa leen. Mhm. sama papa la mère bi sama mère la. la famille samay bagaay lañu. Mhm. personnel bi samay xarit lañu dañ may woo ba léegi. ñoom mhm. ñëpp ñoom ñëpp li nga bëgg la ñu bëgg. Mhm. mais mënu ma wàccu di lekkaat parce que la ma wax yëpp ak la ma dénoncé yëpp. ci kër gi du ma faw duggaat di di liggéeyaat un milliard jaralu ma ko ku la dugal kaso sa noonu la. Ah. yaa ngi def nag jaamu yàlla nag yaa ngi def lu rafet. waaw mais non bul waxaat waxu dénoncé boobu parce que source laa nekk six mois bu six mois yi jeexee nga invité waat ma ma doo dugal da ngay dugalaate lii moo tax sama jabar passe naa la ko bëggul ma ñëw émission bi fi mu ne nii lii xaar moom rek du ma dugg ci kër gi say ba tas doo tax sama sëy bul ma sonal waay yow dama tay doo ma rey sëy bi moom doo ko tas gars yi rendez-vous suba final ba door fop stade Ngalandou Diouf parrainé par El ak Ida Yàlla nag esa ma ñaari bi yëpp fubal naa fa d'accord non doo ah ma dugal patron du ma sursi laa nekk six mois Moussa ci yàlla d'accord léegi leneen lu ma bëgg a waxaat euh, polémique bi est-ce que doo ko wàññi un peu. Mhm. Euh, ci sa diggante ñenn ñi parce que ñenn ñi dañuy dem ba benn instant dañuy yaakaar ni que mhm. yow yaa sikkite alors que mu. dem yàlla man sikkuma Padros. Mhm. non sikkoon du ma nekk télé. xam nga tey ITV maa ngi en direct adduna ñëpp ñu ngi may seetaan. tey boo ubbi woon antenne bi ñiy woote dañuy wax ñi Don Diego ku baax la. Don Diego ku adorable la. tu vois mais nag duñ la tooñ di la tooñ di la man manœuvrer mhm. loo xam ni sa ndey du la ko def sa baay du la ko def mhm. tu vois mhm. après ñu la koy def yow nga continuer rek karab karab karab man ku ma nara a xatal man jàmm laay wër la moo tax ma sol lu weex padros si ku ma de ñoo fa may jaar ñoo ñoo sikk billaahi wallaahi tallaahi sikkuma Ibou Guèye gis naa la